Euh, parce que ñëpp yàgg ñu bégal donc bégal bu ñu ne bégal nag euh, kon képp nga xam ne mu nga ko dimbali rek nga jàppale ko ngir yàlla tax euh, peut-être boo trouver ay contactam di ko mën a jot parce que moom Ousmane mi sax boo ko woowee mën nga ko jot. Mm-hmm. donc parce que ñoom ñaar ay xarit dëgg lañ donc ñu koy ñaanal tamit encore une fois yàlla may ko wéru wéru jàmm ba muy mën a defaat waajal tabaski yeeg. lépp li nga xam ne nii euh, daawoon na ñëw diñu ko béggalee Samba euh, ñoo ngi lay bu baax a baax dina ñaan yàlla yàlla defar la jàmm yàlla mayaat la wér wéru yaram ba nga mën a ñëwaat dañuy dimbali bu baax a baax mhm. alors nanaa dasi waaw ñu koy ñaanal tan parce que bu dee benn fan bégal na ko askanam mhm. bégal na ko rawatina ñun ñi nekk ci senegal donc ñi ngi koy wax prompt yàlla na suñu borom yàlla dolli tan mhm. Euh, mais nag di wax encore une fois di ñaaxaat artist yi parce que bari na fi ñoo xamante ni dañuy feebar bu ñu leen dékkee micro ñu ne ñañ doon àndal saytuwuñ leen wala saytu ba demeewut noonu. di ñaaxaat nit ñi wala artistes yi ci seen jëmmi bopp parce que ñoom kese nekkuñu fi mais la plupart la plupart ñooy feebar di ñaan ndimbal. la plupart nag laa wax. ñu ëpp ci ñoom bu ñu feebaree ñu ngi ñaan ndimbal. rax ci dolli boo leen laajee ana ñi nga doon àndal ñu ne la man de nangam ak nangam wala nangam ak nangam wax la ci loo xamante ni yow yow mii seetaan dangay ngay am mbetteel euh, te nit ci la bëgg ba tuddee la boppam kooku amoo fayam parce que ñaata artist ñoo fi nekk ci àddina ak a ñoo bari ñenn ñi sàngoo nañu suuf ñenn ñi mënatuñu aar bi ñenn ñi ñenn ñi ñenn ñi te lenn lu am rek jàppal ni sa période yow dina ñëw leen lu ci nekk rek soit di nga tële wala suuf lekk la kon nag bu fekkee da nga toll ci say diggu ndënd nga am koo doon àndal natt dal ci kawam te mu leer la ni nattu ak wërsëg du lu jaam di sabab yakkub yàlla la te ko neex la koy sotti sa ndab nga xam ni man nii suba li ko dal mën na maa dal même bu dee yoruloo parce que xaalis sax beneen étape la mais nit ki nga doon àndal mu wopp nga ñëw di ko seet si rek xamoo lan lay def ci moom parce que comme ni ñu koy waxee massa fajul góom waaye dina saral xol nit ki nag sooy ànd ak moom tawat dal ko lillaahi wa rasuuli dee leen toppatoo wala sax boo ko mënul ba mënoo ko téléphone yaa ngi fi dara soreetul fenn soreetul soo toogee benn laps de temps nga dem seeti ji ko man daal loolu laay ñaaxat artistes yi di wax yorode 2 ñu ngi lay seet bu baax a baax a baax on est de tout cœur avec toi di wax ni yàlla na la yàlla may tan yàlla mi nga xam ne mooy docteur bu mag bi te ku mu faj nga wér yàlla na la suñu boroom yàlla dolli tan alors Ouz dama yow waaw Samba Samba moom sama waay la <laughs> Samba moom sama waay la ndax koor bi passé ñoo ko joué loolu tànkam boobu ko sonal ci koor gi sax la ko doon jàmbar. ndeysaan ndax ñun suñu séquence bu mujj bi ngay gis bi nga koy fob man ñànku ak mbegere maanaam booy xool man maa ni nañ moytu tànk bi téye leen tànk bi man maa parce que xam naa fi doon metti man maa téye pour gars yi bañ a kii parce que doon xam ne moom laa nga ko jotuma ko semaine bi passé daf ma message man ci sama jëm bopp ne ma mere naa la ma ne ko samba déet waaye bul ma mere booy lu ma def mu ne ma maa ngi nii togg maanaam tàmbali ngeen tabas bi te déggoo ma munoon nga maa woo laaj ma ci lu ma nekk ma ne ko dëgg la man maa juum ma ne ko waaye nag li tax mu jum parce que dama ko defaloon vidéo daa doon waaj tournée après Mauritanie ak Sénégal mhm. muy diggante Fouta après dem Mauritanie ma ne ko ni ma ko waxee woon pour man da nga nekk ci répétition yi à pour cent moo tax sax ñëwoo tournage parce que man loolu la mu ne ma dëgg la looloo tax parce que loolu laa la mujjee wax te looloo tax mais nii ak nii nii nii nii la demee. mu doon ko gëm yàlla man kanaan yaaram après nga wax mu ne ma ah ndoo ko yàlla rek bu waree kii day kii. Mhm. te jàmbaar la. Mhm. jàmbaar la kuy dimbali njabootam la. Mhm. guerrier la. na benn jour ma waroon fi def ba war a ñëw mais daf moo woowaat ne ma sama tànk baay xaw a métti oh. bu fekkee mën nga ñëw ñëw boo mënta ñëw après ñu jéem xool nañ dañuy def ma jàpp ni carrément mhm. xëy na wax nga ko sànq ñun mhm. ci suñu jëmmi bopp moom bañ na nag mhm. ndax nii nii nii sàmbaa ngi def ay tabaski ndeysaan nii nii def na billaay jombaar la kon am na ci ay épisodes yu jot a daw danga koy xool xam ni nekkul man premier épisode bi ma ko gisee deuxième dama ko wool sama bopp man kenn du ma nettali ay vocal la ngi fii macha allah sama téléphone Mm-hmm. ma ne ko booy ñu waxtaan. Mm-hmm. ñu waxtaan mu ne ma métti na nag. Mm-hmm. trop booy nooree ni du la fen métti na waaye yàlla baax na ma ne ko kon doo mu ne ma non bàyyi ma. dafa yàgg sax 7 mois. bàyyi ma focus. bàyyi ma focus affaire yooyu nangam sangam ma ne ko yàlla baax na incha allahu rabi dinañ dégg waaye nag lu ñu nit lu ñu ci mën dinañ ko ci def. xëy na it am luy néew lu bëri. ñun def neen ko ca fa lañ mën a yem parce que yoruñu ay millions yoruñu ay milliards yàlla dogal na ci lu ñu suñ borom suturaale rek dañuy mën a jàppalante mu ne ma ñu jokkoo daal entre nit tamit te ñu koy ko si xam ne ni yàlla na ci def taw macha allah mais mais mais looy wax ci ci digganteem ak Europe par exemple parce que mm, non non non en tant qu'artiste en tant que porteur de voix en tant que ku mm-hmm. c'est-à-dire lan ngay wax ci digganteem ak Yoro man laajuma la en tant que nooray nii. Mhm. en tant que c'est-à-dire comprendre nga. Mhm. en tant ku xam seen diggante ñoom ñaar mais dama lay laaj en tant koo xam ne li war a am yow xam nga ko. Mhm. est-ce que comprendre nga. voilà digganteem ak ba en tout cas daal man man man man li may wax en cent pour cent. mooy nit bu lay tuddoo. mbubboo ko. d'accord. nit bu lay tuddoo. mbubboo ko ba fi ñëpp tuddoo la mbubboo ko. boo ko mbubboo rek dina gën. Mhm. waaw moo gën taxaw fu nekk naan kii kii kii te kii yow. c'est ça waay en tout cas encore une fois ñoo ngi ñaan képp ki nga xam ne mën na ko dimbali rek nga dimbali ko euh, parce que comme ni ko naan waxee woon sànq yàgg na ñuy donc euh, war ñu koy bàyyi ci moment yi yi mu nekk donc tamit artiste tamit à chaque fois lañ koy wax euh, boo nekkee di liggéey il faut nga fexe tout tamit ba mën a def. économiser dara wala di épargner dara pour. surtout genre yi moo tax. surtout mais mais nag moomu mais aar bi la plupart. voilà fayul. waaw fayul. voilà ñoom ñoo ñuy bégal mais ñoom seen bopp bégguñu. très bien la plupart bégguñu la plupart. alors am na ci ñoo xam ne nag ñu ngi ciy tedd di ci.